Aminata Ndour Faye nekk présidente directrice générale groupe 3M universel génn na ci silence bu mu nekkoon ngir indi ay leeral ci coow li nga xam ne moo soxal télévision bu Sen TV nga xam ne ay fan a ngi nii ñu ngi koy waxtaanee ci biir réseaux sociaux yi mu jël kàddu nag ci émission Sen TV soir ngir dalal xelu sénégalais yi ak ñi nga xam ne ñoo di ay partenaire am li mu xam ne nag moo di amul benn menace boo xam ne rek mu ngi plané ci kaw Sen TV. Ah. Cette <laughs> 7TV mu ngi fi ñu ngi def suñu liggéey yéen da ngeen am problème yéen employé. non jusque là non. est-ce que vous avez des arriérés de salaire. jusque là non. 7TV n'est pas menacée 7TV ne disparaîtra pas. amul itam benn ndogal boo xam ni dafa jóge ci yoona bu wax ni dañu war a saisir chaîne de télévision bi mu nekk wute lool ak li nga xam ne nit ñaa ngi koy wax. personne. ne peut mettre la main mm sur une décision de justice boo xam ne euh, dañ ne euh, cette TV euh, va être saisie amul et d'ailleurs ban média sérieux nga gis mu bind ci mbaa mu wax ci. c'est plus ci réseaux sociaux yi. loolu rek ça certains chroniqueurs. voilà voilà loolu mm-hmm. rek ça devrait euh, pousser les gens à s'interroger mm-hmm. wante nag PDG bu groupe 3M Université la mu ngi firndeel condamnation aux dépens ci dossier bi nga xam ni moo dox ci digganteem ak ñi nga xam ni ñoo moom télévision LCS. parce mm-hmm. que injonction de payer bu ñu def moom la justice wax ne ma ma ne nañu casser procédure boobu parce qu'elle est caduque parce qu'il y a eu des évolutions loolu kese la justice wax ne. euh, ma requête est irrecevable et que je suis condamné au, au dépens mhm. veut dire que euh, seulement war naa fay mhm. mais man war naa euh, prendre en charge les frais d'avocat et autres mm -hmm. et de procédure loolu la de y a rien d'autre bu ñu sukkandikoo ci MNF nit koo xam ni dafa jóg ngir jaxase xelu askan wi moom moo yëkkati débat bi ci loolu moom PDG bi xam xamle na ni porté na plainte pour diffamation ak diffusion de fausses nouvelles contre kooku nga xam ni ñu ngi koy woowee Cheikh Bara Ndiaye